la ci def loolu moo di bis bi euh, tabaski bis la boo xam ne Seydina Ibrahima moom la suñu borom digaloon boo ndigal loo xam ne da ko wax ne ko na nga rendi sa doom ba mu woo doom ja wax ko ko mu déggu ci moom lool mu dal di fab daal koy daal koy indi daal koy daal koy euh, euh, ko fi teg ko ci wetam fa paak ba jëme jëme ca ca baat ba ฉันบักเรียกว่าสินายิบเนี่ยเขาเกาแล้วกาเกาเรียนที่ผาฟุ้งไปเขาชาชาจีนะนี่คนคนเรียนที่โคกีมันมันคงเรียนทีนะ่นเขาบอกฟังว่าเราเล็กมือว่าจะจุดเดือดเฮียสมัยก็เขาไม่ไม่ได้เข้ามาบริบิสเราเลียนมือบบิสตัวสกีนี่เด็กเราเล็กกว่เราเขาเรียนจุกี้